الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب وموالاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا بوكي جلدي mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw nuyoo ba gën a rafet te gën a sell te gën a matale diggante jullit ak moroomum jullitam noo ngi rafetlu seen taxawaay di leen sant ci liggéey bi bu baax a baax ànd na ak yitte andak naag Pastef noo ngi rafetlu jataay bi lol tay sante bu bax ñépp ñi ñëw ànd ak non waye choona bu ngeen ci mën dacc daj jar na ko ndax ki ñu koy defal yàlla fonk na ko fonkeel goo xam ne lu ko waay liggéeyal bu la ko yàlla di fay ëlëk da nga rëccu lu tax dëkke woo ko woon liggéeyal muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bés bii nag saa bu agsee war nañ ci sant yàlla bu baax ndax yàlla danoo bind nun bindeef yi ñuy ñu di lool sunu matadi àgg ci lum nu digal duñu ko def nam ko bëgge nu dëkk ci di ko may waxtu wu ne waaye ci yërmandeem la wàccee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna ci guddi gi muy yermande lépp lu yàlla sak wa ma illa rahmatan lil alamin yermande yàlla nak jarna sante sant sa giru dund ndaw lu melne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko yónni ci mom bu akse war nga ko magal teral ko hormal ko sante ko sante ci la tax ñu yónni ko muy yërmande jaam ñi kese sant ka la ko yónnee te sant gi doon luy sax rawatina nag ci guddi tey gii kon ñu war cee wone sunu mbégte lool war cee terale war cee yaatale war cee dimbale te lépp tënku ci sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dara bañ cee génn sharia mu bañ am benn folklore buñ ci dugalum po wala lenn caaxaan تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة به ازدياد المنة لمخلص معظم واخي شيخنا الخادم جوجي ونننا نيني مانا جاري نيوتي بس بي تي قدقي موين لب لني دف تمقل كتخ نانو كو دبالي اكسونس مصطفى صلى الله عليه وسلم تسلل كو بباخ بنتي تابل بن فبنجستل كون nanu def yitte bu baax ci njàngum alquran mi ak qasaayidi cheikhina alxadim yi ak di tudd yàlla ci guddi gi di ci jéggulu sun borom subhaanahu wa taala rawatina di def salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax day li gënal yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jox ko ko hadiya sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam day yërmaande adduna ak alaxira ci darajaam la ñuy amee xéewal tey ak ku mën a doon ci dara jam lañuy mucce ëlëk ci njàqare ya ak tisya ak ku mëna doon nettali nañu ci téré bu ñuy wax bustanul waazin wa riyaadu samiin bu ibn al jawzi al baghdadi ne ma min malakin ولا نبي ولا ولي ولا صفي ولا صديق ولا شهيد ولا شقي ولا سعيد إلا وهو يقول يوم القيامة بحرمة محمد أن تنجيني من عذابك muy malaika yi muy yonente yi muy awliya yi muy nitu yàlla yu sel yi muy siddiqun yi muy shuhada yi muy ñu texé di ñi wala ñu texe ñi amu ci kenn ci ñoom ku dul ñaan mucc ci mbugalum suñ borom subhanahu wa taala ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam mom lañu lanu al khadim leral ne huwa imam al mursalin maan wal anbiyaau yaqihim fi ljawaal gumama yowma تأتي الرسل قاطبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي وأحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحمه من إمام صلى الله عليه وسلم مو إمام جدي إمام بول يننتي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أك أنبياوي تنيوم يب صلى الله عليه وسلم مولين دي فقل يقري بس بنتبه ndax bu boba kenn ku ne ci ñoom dina tiit ci boppam ba du tal ñoñam mennum sallallahu alayhi wa sallam rek mooy talu xeetam di ñaan yàlla mu yërëm leen kon nanu sox ci bëggam muy xeeñtu sunnaam te jaar ci tey baril salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom sallallahu alayhi wa sallam akthiru min alsalaati alayya fa inni ashfau lakum ala qadri dalika mu ne na ngeen bari lu ngeen di def salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax kem ni ngeen ko bari le rek ni la len di ràmmoo waxaat na moom sallallahu alayhi wa sallam ne an jaakum yawm al qiyamah min ahwalha wa min mawatinha aktharukum alayya salatan mun bu yawm al qiyamah ki a mucc ci yéen ci njàqare njàqare ya ak barabi tisya moy ki eppele ci yéen lu muy def salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam waxna batay ne man taraka alsalaata alayya faqad axtaa tariqa aljanna mune ku bayyi على النبي صلى الله عليه وسلم واتنا يون الجنة ابن الجوزي البغدادي al ان الله تبارك وتعالى اذا اراد بعبده خيرا يسر لسانه للصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم واذا اراد بعبده شرا حبس لسانه عن الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك سببا لسواد وجهه كما أن الصلاة لتنوير القلب من qalb برم سبحانه وتعالى borom subhaanahu أو يو دي يوم بلال أو aw من day yombalal aw làmmiñam def salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu ko naralee musiba da koy jafeelal def salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam te mooy waral nee na bu faatoo kanamam màndargam ni salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam di leralé sakanam bo faato ta lolou moy màndargam texe kon képp ko xamné amna jafe-jafe def salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wala mu tayel ci na xamné yàlla naral nako aw ay na xoolaat bopam bu baax a baax képp koo xam ne ak ñap ndal lol ci def salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam na sant yàlla bu baax ta xamné yàlla naral nako aw yiw na gor góorgóorlu sax ci sallallahu alayhi wa sallam neena tamit man asurat alayhi hajatun falyukthir min alsalaati alayya fa innaha tanxallu uqda وتكشف الهم والحزن وتكثر الارزاق من كيب كو خامني مبير جافينا كو اك مبير مومنا دون نبري لومي ديف صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نخ نينا صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دالاي ген تي جافي جافي دي لا وغنيل نياخاري اكوم تيت دي ياتال سا ورسك دا فا ام واجو نييو تي صلى الله عليه وسلم نيكو گن نيان مو گن گن نيان مو گن گن گيمي ديف صلى الله عليه وسلم نيكو assalaatu alayya julli ci man maanaam def salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam waaja ne ko kon de sama jaamu yàlla buñ ko xaajee ñetti xaaj benn ba salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam lay doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idan hudiita kon de yàlla dina la teg ci siraatal mustaqim waaja ne ko kon dinaa far xaaj sama jaamu ñaari xaaj benn ba ma def ko salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ne ko idan ku fiita kon de yàlla fegal la ayu tay ak ayu ëllëg waji ne ko kon na far def sama jaamu lépp muy salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam sangu sangi sallallahu alayhi wasallam ne ko man jaala jamia ibadatihi as-salata alayya qada allahu lahu jamia hawaij ad-dunya wal akhirah ku def ak jaamoom lépp di salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam yàlla dina ko fajal aajo yi addinaam ak yu alaxiram moo tax liggéeykatam ba mu geureum di cheikhuna al-khadim ne amma salatuna ala an nabiyi محمد خير بني لؤي فهي أجل ما تمسكت به بعد أداء الفرض فلتنتبه mu ne gannaaw boo defee farata yi ba noppi muy julli juróom woor weeru koor natt azaka ci alal ju ko mate aj màkka boo ko manee te yooyu yëpp di lu yàlla santaane moo tax muy farata mu ne laneen loo mën a def di ca dabu ngërëmal yàlla salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gën kon noo ngi leen ci soññ bu baax ci jàpp ko te fonk ko seen giirug dund nag bu leen ko yemale ci tey jii rek bañ koo woyofal bañ koo doyadal mukk ba tax na solo soo suñu am moo waral ñu doon ko santaane ca gàmmu gële ba tey jii waaye lañ ci mébétoon muy fukki milliards yi jotuñu koo am waaye am nañ huit milliards yu topp gannaaw loolu bokk yi faaw ñuy fàttalante di labirante di ñaaxante yooyu yépp nag di lu gàll ci loosu bépp jullit bu tane moroomam ci li leen war seen digganteeg seen boroom ak seen digganteeg seen moroomi mi def kon warunoo tàyyi mukk ci yee ak a xamal sun mbokkum jullit la mu xamul ci ay warteefam waaye tamit bu nu tàyyee wala rëy sàkkoo xam li nu ump ca la war ndax kat bokk ñàkk a jëfe ndigali sun borom yi ak ñàkk moytu ay tereem xawma duulayam ëllëg ndax alquran a ngi fi ahadithu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi fi boroom xam-xam yaa ngi ne fe gàññ bokk yi li xew ci sunu jamono ji te muy lu metti ci xolub képp ku lu baax yitteel dara warul ko lu dut ak réer gu nit ñi réere seen boroom ak lim leen sant ak lam leen ca dikk lim leen tere ak lam ca daale lool yi di réer gi nag yóbbe leen ak càggante seen bakkan wommat leen ñu topp ko ci bànneexam ba nuur ci lu ñu am yëg-yëg def ko amuñu ku ñuy bàyyi xel amuñu lu ñuy sóoraale jommalewuñ seen bopp dara lu mbir bon bon bañ na nopp dalooti na wala fii nag la bët yam tey jii diir bu gàtt nga cay teg dégg ko yées baa nga gis ko mujj nag dara rëyatu ci ñoom lu ñu def xeeb ko ñuy miin a dégg lu bon di miin a gis lu bon di miin a def lu bon ba mujj mu mel ne aada kuy jema jubal sax di jema tek tànkam ci siratal mustaqim ñu naan muñal leen ko tuti rek dina ci génn legi bu bëggee avancer nañu xamne la yastawi al khabith wa at-tayyib wa law ajabaka kathratu al khabith bu aduna bépp maase won di def lu bon du yag yag ba mu yam ak lu bax ak kuko ko def nak ak daraja ju mu mën am du mas a nekk mukk lu bax lu bon rek lay way di nek kon lu baax boo ca nekkee loo ca wéet wéet wéet rekk nekk ca lu yàgg-yàgg yaay am ndam yaay am dëgg mbokk yi jamono jii ñu toll lislaam mi ngi gën di tumranke di gën di ñàkk ay taxaw ñu di ko doyadal di suufeel jullit yi di tilimal seen der di ko jaarale ci ñuy woowe seen bopp ay jullit ñu lëkkalook noonub lislaam bi di ko defalug bëggam te dara waralu ko lu dul bëgg àdduna ak topp seen bànneexu bakkan ak ragala ñàkk seen intérêt bopp yu ñu am ñenn ci ñi war a gindee ñu yaakaare ci ñoom xam-xam bu sell ak wonew yoon ñooy réerale di ndax nit ñi di leen jàddal duñu jéem a soppi seen jikko yu ñaaw dëppale ko ak lislaam waaye dañuy soppi ak tey lislaam ngir dëppale seen bakkan ñooñu ku leen déglu ñu réeral la yenn kilifa yi war a àddu di seetaan ñoom tamit noppi ci li ñu war a wax moo tax ku ne am fitul wax lu ko neex ak di def lu ko sopp lenn ci kilifa yi yablu seen bopp lool ci jiital gu leen àdduna ak alali àdduna ak seen bakkan jiital ak ñàkk doyloo seen borom bay def yu xeeb ba tax na ñu bari tegatuñ kilifa yi fenn boo waxee ñu ne la ñépp a lu kenn mënta dégg ñu leen koy wax ku ñu mënta teg sab dar lu ñaaw amul rusatuñ kenn joxatuñ cër kenn yenn kilifa yi seytaane man ba ñuy def lu méngoo wut ak lañu doon séenu ci ñoom di yàq deri seeni moroom yay jéem a teg seen tànk ci siraatal mustaqim boo leen dee tagg sax ci seen kanam ñu naan la moo day dóor rekk léegi mu génn ci li muy def du dëgg ci moom ngirub kañaan walla bëgg moroom ca fa leen nit ña teg fa ñu toll bu ngeen seetloo léegi da ngeen gis ne xorma lu néew la wegeel amatut ay teggiin di lu ñu umpale lool di jël lu bon di ko dugal ci diine di jël diine di ko dugal ci yu bon yi ñuy def wut ñu ñuy wooyee boroomi xam-xam nag ñu di leen ko wutalal aw lay li xew léegi ëpp na da ngay gis ab waraate kat boo xam ne da yor micro ca pomaak caaxaan ya di yor micro ca xewi diine ya ngay gis ñu ñuy déglu wala seetaan cib tele wala rajo ñuy wax léeg léegi ci diine ci seen xelum bopp rek di wéyee foog naa ak defe naa ñooñee ku am ci ñoom yaakaar yaa ngi waru li xew léegi ëpp na seetlu leen léegi jikko yi nga xam ne moom la ñu baaxoo woon aada woo ko ci ñu néew nga koy gis léegi muy ngor jom fulla ak fayda xool leen wor ni ñu ko yombale léegi ni mu jàppande koo digal mu def la ko wóolu nit ci sa alal ndekete lalal na la ay nax bu yàgg wóolu nit ci sa njaboot mu tooñ la ca muy ci say soxna wala say doom wóolu nit ubbil ko sa bopp ba mu xam sa biir mu yàq la yaxe goree di jëfatuñ ko muy dara doylootuñu alali àdduna dara daraje àdduna jaral na leen jaay seen ngor néewle jomm lool lool ba far deseetuñ ca dara koo ci gis muy bëgg a dund ci ay pexe ak i wuruj kenn nëgootuta sàkku xam-xam kenn nëgootuta wut métier ngir gis nañ ñu seenu njàng soriwut ñuy ñu yor alal ju bari wala poste yu kawe ci réew mi wala ñu yor alal ju ne gàññ ci diir bu gàtt bu liggéey kese mënta maye moo taxit léegi koo ci waxal mu ne la alal su ko liggéey dees ko lijjanti waaye bu ñu xamoon borom alal yooyee xàq ya ñu yenu ca seen alal joojee daañu ko seexlu lool ba far ndóol gënal leen ñàkk jomuk nit ñi àgg na ci mën nañ laa waatal ci yàlla ne mbir sàngam nii lañ cay doxe wala seen gëm-gëm ci mbir sàngam kenn mun leen ca génne bu ëllëgee nga gis leen ñuy doxe sofaanu la ñu waxoon ba noppi di ko layal nag lay woo xam ne ku néewum xel sax bu ko déggee xam ne tegewut fenn nit ñi amatuñu pas-pas bu dëgër amatuñu ak dëggu ci li ñuy def ñàkk nañ fulla ba lu ñu leen woo ñu wuyu ca ñàkk nañ fayda ba duñ xool lu leen amal njariñ ca seen diine ak seen adduna ñu door ca tàbbi li xew léegi kenn mënu koo misaal ñaari jullit yuy teg seen tànk ci saraatal mustaqim seen kemtalaay kattan di jaamu yàlla ak a sàmmonteeg sharia lu ñu man bëggante bëgg sëy ngir jaamu yàlla ñu ne leen du fi amee ngir lan ngir rekk ni kii lii la keelaa la mooy muy aada yu tegewul ci lu dul rëy puukarewu ak jàpp ne yaa sa morom dinaay faral di nettali qissa sayiduna jibril alayhi salaam bi ko sun borom subhaanahu wa taala yónnee àdduna ne ko demal nga xool fa loo xam ne yaa ko gën nga indil ma ko bi sayiduna jibril alayhi salaam ñëwee wër ba dajal daal di dellu ca borom sun borom subhaanahu wa taala ne ko loo indi mu ne ko wër naa ba dajal waaye gisuma fa dara loo xam ne maa ko gën sun borom ne ko delluwaatal nga xooli mu ñëwaat àdduna wëraat ba dajal bay waaj a dem romb benn xaj bu métti mu dem ba di ko jël bàyyi ko daal dellu ca borom subhaanahu wa taala suñ borom ne ko ana loo mu ne ko wër naa ba dajal waaye gisuma fa loo xam ne maa ko gën benn xaj bu métti daal ba yàqu laa romboon ma dem ba di ko jël ma xalaat ne gënuma ko ma bàyyi ko suñ borom ne ko de xaj bu métti boobee de boo jàppoon ne yaa ko gën ba indi ko fii fi man danaa far sa tur ci diiwaanu malaayka yi boo seetantalee xissa bi tey ab jullit waratoo xool kenn di gis ngëneel ci kawam yàlla rek a xam ki gën ndax moo ne inna akramakum inda allahi atqakum ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla te at taqwa muy ragal yàlla xol mooy barabam te yàlla rek a xam li nekk ci xol yi ak ñu néew ñu ngi ko jagleel te ñun ñépp ñoo bokk ku ñu meññ muy sunu maam aadama lañuy gënante du aw askan wala yax bu dijj ndax askan wi wenn la muy diggante aadama ak xawaa alayhi alayhim assalaam yax bi tamit ñoo ko bokkule mooy yaxub nit rek yoruñu yaxi nag ñi yor yaxi xar wala yaxi gaynde annaasu min jihati tamthili akfaau abuhum wa aadamu wal ummu hawaau saydna ali karama allahu wajahu moo ko wax nee na nit ñi ñépp aadama alayhi salaam mooy seen baay xawaa mooy seen yaay kon bu ñu leen dee comparé ci wàllu askan saydna ali nee na ñépp a yem kenn gënu sa morom kon gënante gi mi ngi ci gën a jege yàlla rek te gën a jege te jege yàlla gi mi ngi amee ci jaamu ko ak jikko woo jikko yu rafet te ña ñuy xeeb ba duñ leen may seen doom am na ca ñu leen dàq jaamu yàlla fopp gën leen a rafet ko ñiy xeebe tamit am na ca ñu am ay jikko ak yi doxalin yoo xam ne ñañuy xeeb jommale nañ ko seen bopp ndaxu ñaaw kon li am solo mooy jullite rekk te lu baax lépp a ngi ci biir jullite yi loolu lépp nag dara warul ko ludut ñàkk xam seen diine doyadal sharia jël aada teg ko ci kawam lu ko gën a doy war amut mu kàllaf mu ne am na lu ko war ci diineem sant am na lu ko war am na lu ko war loo xam ne diineem moo ko ko sant te kenn du ko defal ndax moom la war te bu ko defut ñu duma ko ëllëg yowmal qiyaam kon dara dara gunta doon farata ci xam lu warteef yooyu yi xam lu buñ leen waajalut ci xam-xam ci biir ak yi teggin réew mi du mën a jëm kanam ndax xale tey ñooy doon mag yi ëllëg société bi day màbb ndax tegewul ci fondement bu dëgër lii lépp nag li ko waral mooy sànni suñ diine fële sànni suñ aada fële di toppandoo tubaab bi ci ay droit ak i loi yu ñuy tëral lu ci mel ne ay droit de l'enfant di yar xale yi ci liberté amul yenn xàq ak i yelleef yu ñu mëna teural ngir xalé yu gën yi leen l'islam jox ndax suñu borom mi ñu maase bind mo ñu gëna xam suñu bop fop sol lu la neex dem fu la neex genn kër gi heure bu la neex teur si heure bu la neex wajur du xam fo nekkon wajur du xam ci lo nekkon di wax lu la neex di def lu la neex di jaxaso ku la neex te ëlëk yowmal xiyam sofaan bu sax njabot mel di nga ci am responsabilité bu reuy nettali nañ ne bu bés penc ba di nga gis doom ju ju ñu càmbar ay mbiram ba war koo dugal sawara mu ne suñu borom subhaanahu wa taala du ma dugg mukk te dugaluma sama baay ba pare ndax lii lépp moom ma ko teg bokk na ci liy jur masiba liberté wax lu la neex ak liberté bu def lu la neex wax lu la neex dafa ko moom def lu la neex bàyyi maa ko moom nit ki ba mu ko leeree ne ba mu ko leeree rekk ne sëkkut boppam la ko war a leer ne moomul boppam takiko mom teunk nako ci num wara war ak num wara war wo ak num wara doxale bu la nexé nak man nga dag jeng bi waye do raw de ndax kila mom dañ na fep fo daw jëm fekk ko fa gëmmut nelawut la ta'khudhu sinatun wala nawm te wul dara inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar dalay xare bés rek te bés bobu lu mata baye xel la lu mata sorale la ci li ñuy def ak li ñuy wax ak ni ñuy jikko wo mbokk yi ilallahi marji'ukum jami'an amul kenn ku dul dajeeg boromam subhaanahu wa taala ëllëg ca bés booba fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun lépp loo mas a def nag ñu wax la ko te doo ci mën a weddi lenn ndax bés boobu mooy yawma tashhadu alayhim wa alsinatuhum wa arjuluhum bimaa kaanu ya'maluun lu ab cër mas a def moo koy waxal boppam yàlla wàccaw nag nun ndax yónnee na ci nun digal nu teranu te lépp di lu leer naññ digalunu lun munta def terewunu lun munta bay la yukallifu lahu nafsan illa wusaha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ndawam tamit wàccoo nak non ndax jotal na wan nanu liñu war won nanu niñu wara jikko wo ya yaa nasu taqu rabbakum nanu ragal yàlla kon lol ci ndigal mi ak tereem yi wa abuduhu wala tushriku bihi shay'an ñu jaamu ko te bañ koo booleeg dara bañ koo dendaleeg dara bañ koo tëkkale ak dara na lahu diin te sellal jaamu gi bañ cee tabbal benn ngistal te sunuk am dara da ko waralut lu dul jaamu góor gii dong wa ma xalaqtu jinna wal insa illa li yabudun te jaamu gi dara gënu cee doon farata julli juróom yi nanu leen fonk te di leen bañ a yéexe lu nu mën a nekk ba mu jot nañu ko bàyyi te julli ji bu ëllëgee yowmal xiyam nee ñu kat julli juróom yi la sunu borom di njëkk a xool ba xam daa nga ko def na mu ware lu ñu leen mën a sant nag ak liggéeyu kum mën a doon daraja jum mën a am li la yàlla sant gën a yeyoo def njëkk di woor weeru koor dina ta ci alal ju ko mate aj makka bu mënee nekk te lépp nu dëppale ko sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu nu taxaw ci yar xale yi bu baax jàngal leen ba ñu xam seeni warteef bu baax te tàggat leen ci te bañ leen a bàyyi ci li leen neex adduna rëb na te bari bi yëngu jikko yi yàqu na ku ci sàmmut sag njaboot nag def ci yitte duñu mujj fu baax ndax xale yi ak jigéen ñi ñoom rekk a yitteel yàqkat yi sunu bokk yu jigéen ñi nag du ma tàyyi mukk ci di leen fàttali la sëriñ Tuubaa dénkoon taalibeem ba soxna Penda Diop la mu ko jëkk a wax mooy mu taqoo muñ ak ragal yàlla diko baye xel ci lépp lu muy def muy lu nëbbu wala lu fess motax muneko alayki bis sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir yaxfira laki daal di ko tegal ne dumi ala tawbati bi ijtihaadi wala tamili li siwa rashadi segam ay rëcc-rëcc munta ñak ci jambi ndax sunu borom moonu moñale ak matadi moo tax sëriñ bi dénku ko muy taqoo tu fu mu toll tay farlu ci ay wartefam te luddul ak njub bu mu ko def bu mu ko wax bu mu ko xalat sax tegal ko ca ne دومي على على الخمول والتستر ولتخفضي صوتك دهرا تشكري mu ne ko na nga sax ci muur say cër di suturaal say awra tey wax ndànk di wàcce sa kàddu sa giirug dund ndax jigéen kat lu dul xar kanamam ak tenqi loxoom awra la te loo feeñal ci sa awra ñu di la bindal bàkkaar ba ci sol loo xam ne day fésal sa jëmm ni ko sun borom sàkke di nga ci am bàkkaarub sol gi am ci bàkkaarub jeexital gi nga def ci xolub ki la gis kon lu mat a moytu la sëriñ bi teg ca ne لا تنظري ما دمت حية إلى غير الذي تحلله قد انجلى بول خول ولا غاي املانتي غور غودوت سا بوروم كير ناخ يالا حرامال نكو بي غناو بام كو مويتلو جو ري فن غيستال ييم جيف وانيو اك مير ديغال كو مسخو نوبي تاي موغ ولا ترومي طاعة الله بلا طاعة زوجك التقي ذي العلا مونيكو بول ساكو توب يالا تي لودو توب di wéy ci ndigalam di moytu ay téréb di dabu bànneexam fi ak limu bëgg ju yowu tak suñu borom bëgg sëriñ bi neko wa wal taalami anna an niswati fi taati al azwaj doona miryati mu neko na nga xamné amul benn werante ne jigéen jihaadam mooy mu sax ci top borom kërëm di dabu bànneexam ci la neex yàlla ndax fu ko boromam gërëme rek fu ko borom kërëm gëreëmé rek yàlla gëreëm ko defal koy xéewal moo tax sëriñ bi ne ko wa xaytuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi nicmati سرين بتكتنه أما إذا لم يرضى عنها أبدا فليس يرضى الله عنها سرمدا جيجنجي يلا دوكو غرم مكو فيك بروم كرم غرم كو كون بوم خالات مكو يلا بيك فيك سخوت تي بيغل بروم كرم تي لي يلا سيرين توبا ميغي جيخال ندينكان كان لتي فعلمي لا ينجو احد من عذاب الله حتى يترك اربعه اشياء الكذبه والكبرة والبخلة وسوء الظن مونيكو خمال kenn du mucc ci mbugalum suñu borom subhaanahu wa taala muy góor di jigéen fii ak téqalikoo wut ak ñeenti yëf yii wax lu dul dëgg rëy nay ak ñaaw njort gannaaw loolu noo ngi leen di dénk yéen ñépp te di leen ci soññi bu baax nu boole suñ bopp bennale suñ bopp juboole suñ bopp déggale sun bopp nu bëggante soppante wóolante nu yëgante wegante joxante cër bu ñuy xeebante bu kenn gis ngëneel ci kaw moromam bu ñuy ngis tal ci sunu jëflante bu ñu gisee di reyante bu ñu dëddoo di jëwante bum ñu dal mukk bu ñuy añaanante nanu yéenante jàmm lu ci waay am ci xéewal wala nu mu mel ci nu baax nu yéene ko ko te xam ne yàlla mooy doxale nu ko neex ci jaamam nu warmaalante sàmmlante sunuy der kenn ku ne la mu bëggut ku ko ko def bu mu ko def moroomam te lu mu bëgg mu te la mu bëggal boppam mu bëggal ko moroomam lii bu amee rek ànd bi dina jàppandi dina neex dina sax ci loolu laay digale képp ku aju ci man tama sañ laa digal ci mu bindu ci daayiratu saalihin fi xidmati xayril muqarrabin bi nga xam ne mooy toolu kër gi mu bokk ci tënku ci di ci yëngu tey sàmmonteeg charte yañ ñu fa tëral teewul nag kenn ku ne fu ko soob te mu gis fa njariñal addunaam ak àllaaxiraam muy daayira bu mën a doon boyal nañ ko ca waye gannaaw bu defé lako war fi ci tolu bopam bi tol bi nak teje wut ndax barab bu liggeeyu kayu yàlla la ba taxna soppe yi xarit yi kuy julli rek ci gëna yaatal ubbeeku na ci mom kuy talube ci kër gi nak da ci raw na ci duggu duggal ci ak njabotam fu mu mën nek ci aduna bi waj'al lana huna wa hanna hawa ذا غبطة تفضلا فنحوها وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحبب بلا الشقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين الصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاصد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته am لب leen lépp lu soxal information générale publicité documentaire reportage interview plateau spécial entretien wala bépp xew-xew diine buy am ci biir réewum Sénégal wala bitim réew moo xam muy màggal ou gàmmo yi yi ak bépp xew-xew bu soxal TV jël na ci ay matuwaay woo ci 77 433 39 39 wala 76 127 18 89 ngeen jokkoo ak Serigne wala suñu site internet ci ñetti w point Rafa TV wala suñu page Facebook ci TV Rafa TV abonné